xalifa baayam bi nga xam ne jii mooy Mouhamadou Rasulullah al yaqin ku ko gën a xam xam ko ci liggéey ak jaamu yàlla kese ku xam soxna Saybata xam ko ci taxawaayam muy jigéen ju mën góor ndax fi ko baayam tegoon fa nekk ba léegi ba pare mu nekk koo xam ne tey li ràngu ci kanamam ak ginnaawam kenn munta xam luy doyoom kon tey bis bi nag ku ne moo ko gisandoo ñun duñ ci dara ndax Cheikh Abdoulaye Yakhine dafay nituk sunu boroom goo xam ne nii juboo naak sunu boroom li ngeen gis nii ñun noonu rek nañ ko gisee dañoo xëy rek lépp tasaaroo du ay affaire média du affaire dara moom si wàllu boppam nekk gi mu nekkal yàlla moo tax suñu yàlla def ko ci xoli nit ñi biram wasaaroo ñëpp bëgg ko foo mën a jóge ak lu mën a doon boo fi ñëwee aajo joo mën a am rek boo ko fi ñaanee suñu boroom euh, euh, euh, nangu ko di jaajëfal nag soxna say ba taxay dara ndax lii lépp mooma moo yokk lii lépp moo wisaare lii lépp ci moom la ko yàlla jaarale ànd ko ñun ñii ak yow mii kon nit la xam ne yàlla dimbali na ko xam na xàmmee sun borom nag gën maa dimbale ba lu dul yàlla feesul sama bët ndax dama am xéewal goo xam ne nii dama koy wax toujours xéewal gi mooy juróomi doomi Serigne Touba képp ku ma ci jox loxo nga ni ma bajaan la ko waral jaxasoo ga ma jaxasoo seen doom ay doo seen doom di dem ci ñoom ba ñu ba ñu ràññee ma. ñooñee nag seen melokaan yoo xam ne yàlla lay kese moo ne ci ñoom ku ne seen keppaar ku ne lu dul yàlla lu ne du mën a fees sa bët loolee nag moom la ñu ànd ak soxna Saybata ba ñu ci dara. avant ñuy agsi fii nag métti woon na lool gis nga jàkka yeeg jumaa yeeg yëpp soxna say bata la foo ci dem day fees kër sa njablaay foo dem gis nga tël yi robinet yi lamp yi dëkk bi comme bëccëg loolee lépp dañoo ànd ak moom di ko xeex suñu boroom defal ñu ci ndam ba tey jii tey xéewal ji tey ñun ñëpp ñu ngi ànd di ko jariñoo soxna say bata nag ñun